Euh, jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy waxee saa su ne euh, mënuñu dugg ginnaaw raay ba génn du ñu jël xale bi nga xamante ne mooy tas yaakaar mu nekk ci révélation bi nga xamante ne làmb actuellement ñu ngi koy bàyyi xel gis nañ jéego yu am solo yi nga xamante ne mu ngi koy def naam xale la waaye bërëb bi du bëre gone. parce que saa su ne boo gis muy bëre di ci jëmbat li nga xamante ne mooy la ak fayda njàmbaar ak fit ak la euh, ginnaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi tas maa lay ziar. Baye Dieng fay nañ la. dëkk bi wax. waaye dëgg bu di la ziar. di la jox sa wàcc waay. waaw di profité si koor gi. waaw baal ñu àq yow moom ameloo kenn àq baax la borom xol di nuyu sa cameraman. waaw maa nuyu tamit waa Pikine ginnaaw raay bi. waaw di sant sama yaay nag waaw maa ngi sant sama yaay daf may jàppale waaw lépp moom la barke Seydina Mohamed di nuyu ñëpp waaw ku lim juum. Mhm. noo dundee ci làmb ji actuellement. waaw comme ni ñu dundee rek ñu ngi nii di waaw nekk si ni entraînement waaw di préparer waat suñu bopp. Mhm. ñu ñëw tuuti ci koor gi balaa ñuy dugg ci làmb mbër nan lay préparer koor ak. ak actuellement ni ngeen mel ni ngeen bëggee lekk bëgg entraînement nan ngeen koy waaje non comme ni ko gars yi di waajee rek waaw woor ba ngoon jot waaw yaa ma gën a xam fonk juróomi waxtu yi waaw bu bu buñ dajee ndogu. waaw ndogu lu yem nag mburu lii war ak beer dem entraînement. loolu ngay ndogu. waaw non man bari damay tayal. mburu ak beer. waaw bu ma sama lekk yëpp guddi la bu ma demee entraînement ba ñëw laay mën a coob. Hmm. Hmm. fooy dem entraînement. géej la ñuy dem bu ñu ñibbisee bu ñu demee géej bu ñu ñibbisee dem salle musculation. Mm. waaw. Mm. actuellement gis nañ saison bi bi mu commencé naaw Covid bi ubbi nañ saison bi mais yaa ngi ñëw ci du di waat yeneen xar kanam yoo xamante ni vraiment yaa ngi doon jël mais bii yoon dafa mel ni sa jël dafa néew mais yaa ngi gën a wane sa bopp ci ponkali waaw lu leer mais keroog maa jël fële maa jël dàgga. Mm. waaw dàgga jël naa waaw finaalu ñaata yoon. finaalu naa jël naa tamit ginnaaw mbulum. Mm. waaw mbulum jël naa mm. waaw finaalu naa Dakar tamit. Mm. Mm-hmm. benn final boobu nga final boobu kese. Mm-hmm. kan moo la éliminé. booy Jackson Ngañ Seen. boobu. kan moo la Dakar yan compétition lañ la ci éliminé ban ak ban. rek laa fi wàcc. deux fois laa fi mooy 4 millions yooyu général bi ma la ko jël waaw te boobu ngañ seen noonu éliminé deuxième tour hmm. waaw. lan moo tax ngañ éliminé la. waaw lamb la rek. waaw tas tas ma xamoon ak tas mi may gis actuellement du benn tas bu ma xamoon mooy boo ñëwee ci làmb damay gis benn sérieux boo xamante ne mu ngi ci yow concentration surtout ñu ci bari daawuñu la foogee wala daawuñu la ko yaakaare ba fi ngay toll ci compétition mais actuellement léegi dañuy dugg rek wane ni carrément maa leen ëpp doole maa leen mën damay jël yóbbu ba surprise day mujjee am. non du loolu sax lamb lamb ak lamb lu mu laaj rek bis bi non barke sëñ Bamba duñ foofa xëy na bis bee laaj loolu rek ay xale lañ waaw bis bi lu mu laaj rek dañ koy def waaw waaw. yaa ngi koy ko benn yoon. billaay fooyoo ma ko man du ma fooyoo lamb waaw mais xëy na bis bee laaj loolu. seetaan nga jàngat làmb ak Père Birahim Ndiaye. waaw seetaan naa ko suñu papa Birahim Ndiaye maa ngi koy nuyu à passage. waaw lu mu wax lépp loola lan la wax. nee na kii bu def rotation bu ma def. maa ma ñàkkloo sama mu wax tamit loolu mu wax lépp am waaw. baax na lu si kanam rawu lu hmm. lan la wax pour nga doon champion lan moo liggéey la wax ak téye sa bopp te gars yi ñu ngi si jaarale waaw ñu ngi liggéey lu metti waaw maa ngi nuyu tamit waa xam sa cosaan di nuyu sama course moo course waaw moom lii yëpp moom la bat sëñ Bamba di nuyu tamit sama course boo xam ne moo jugee salle muscle ak kii géej boo jugee géej igri xam sa cosaan contact ba pare moo may yóbbu géej waaw mooy géej caaroy géej waaw moo fay yor guddi gi muy Modou Gueye waaw boo nekkee mbër simple ñu lay gis ci simple yi lu bëree bëri pour nga dugg ci bëre dóor bi am combat dafay xaw a métti te dafa mel ni duggagoo ci bëre dóor bi yaa ngi koy waaj wala la moo la teree dugg ci lutte avec frappe bi actuellement. non dara instant yi bëgg naa ndax man instant yi taf naa sama sama licence dóor ñu ngi may doxal ñaari combat mais sottiwul. du sotti doo am combat. Ah, instant yi ñu ngi may doxal ñaari combat mais sottiwul. bëri doo ci gaaw a doo ci gaaw a bëri. billaay bëgg naa bëri. parce que lu ci bari mooy dañuy gis preuve yi nga xamante ni yaa ngi koy def ci lutte simple bi euh, mbëri bëre dóor bi ñu baree bari mooy loolu est-ce que duñ jékki-jékki rek yéegal la say mborom lit nit ñi ngay bëre lit simple ñu indi leen ci bëre door bi ngeen laale. waaw noonu laaj demee nag. bëgg nga ma jox ku ma làmb booleel. man damaa bëgg nga ñeme li ngay wax ñi lay seetaan mën a xam tas yaakaar ak diw parce que mosoo bëre arène. waaw mu toll nii nag bu ràmb nga nag yaa lay daw rek waaye dawoo benn nag. ma bëre waaw mais instant yii ku ma làmb booleel damay bëre moom waaw man bàyyi ma fi kenn waa Pikine laa bàyyi waa Pikine ginnaaw raay waa Mango ji laa bàyyi waa Pikine mais. amul kenn koo xam ni tas neen du bëreel moom ñëpp laay bëreel waa Pikine kese laa bàyyi ak waa Mango ji côté Thiaroye côté Bac Seras ñooñu laa bàyyi mais waa Pikine ñëpp laa kii astafurlah ñëpp laa bëreel waa Pikine laa ji. mais am na xale yoo xamante ne bëgg naa laale ñoom ñu am ñaari combat wala ñetti combat nga xam ni yéen ñaar woon ngeen mën a ko. waaw lu leer. wallaahi instant maamulaan bu ma ko joxee damay boroom moom. ngëj Ndéj Maam Lam fee la dëkk fii la dëkk Grand Yoff booy Dugar Pël bu ma ko joxee damay boo moom. waaw moom moom combat la. Eh. Ah, dañ koy daw kay man bëgguma dara lu yomb gars yi dañ bu ñëwee ñu hmm. waaw ak yeneen booy yu si kaw yëpp bu ñu ñëwee. kaw Cissé kaw kaw Cissé bu Dalifor. Hmm. kaw Cissé. dafa am Kaaw Gourdin am Kaaw Cissé numéro. Kaaw Cissé bëri nañ 10 millions yi maa moom. numéro 2 nañ ma ko jox. moo éliminé woon Zana Malika. waaw ah, nañ ma ko jox maa ngi moom combat la. eh kooku diis nañ ma ko jox. booy lay wax de. combat booy. <laughs> waaw ñoom ñëpp ñoom mag si làmb mais làmb la. nañ ma man maay ñaan chance nañ ma dimbali may ma chance bu borom ñëw. ah waaw ndagam gars yi nanguñ maa jël kay. Eh. waaw mais daf ma dara si làmb nag daf ma loo xam ne gars yi mu kii a ma dawuñu ma nag xëy na dama leen arrangé wul mais nañ ma tax. yan promoteur nga yaakaar ne actuellement bëgg nañ sa combat. waaw man moom promoteur bi laa waxal. Hmm. man bur burxaan moo ma yor. Père Bourkhane. waaw mais tamit Jamaïcain keroog waxoon nañ ñu bëgg ma dugal si combat kii. Baye Mandione Fayantaan arène nationale. njar ndéem la njar waaw. <laughs> mais ba tey mais booy tamit bu ñu nangul jël grand si kaw. ñu ngi may sens yu bëre. tëb tëb booy door garaa yow loolu. la ñu ngi jël. non du loolu sax moom foog nga bëree quatre combats préliminaires wala cinq doog mën a bëree ay grand combat ak te sa morom yi ma gis am na ci ñoo xamante ni xanaa nga dagg sa avance jox jox. X9. amagul combat waaw nañ ma jox maa moom làmb la. booy ah, jox maa moom la waaw ak yeneen ndaanaan sax yow xam nga yow ni mu war a mën a bëreel man. kay xaw ma xaw ma kenn si làmb ja xam nga. benn booy. ku ma jox daal ma bëre maa ngi fi làmb maa ngi àndaroon ne de kii làmb mooy seen métier. Hmm. ati hmm. ah, actuellement ñu ci bari am na benn bés ma toog arène nationale wax sa at. ñu ci bari dañ ne ma loolu mënul nekk kàttan bi nga am. macha allah dayo bi nga toll moom munoo at âge bi nga wax ni moom nga joxe dangaa def ni yeneen mbër yi di def rek dagg xaaf ci digg bi. non def na jugement man 2000 laa judd 2000 laa judd def hmm. Hmm. nga am da nga ko entraîné wala judduwaale. waaw da ko liggéey nag. damay entraîné ndax yow boo xoolee tas sax nga xam ne tas mi. ak tas mu deux mille vingt bokkul xam nga ne tas dafa liggéey. waaw ba may ñëw keroog terrain gaal gi. ba mu fay ñëw di final boo fay état boobu moo fa indi ak keroog ba may ñëw te kii. arène xam nga ne état bokkul. waaw loolu liggéey. mooy entraîné de. waaw ah. sérieux surtout parce que damay gis tas am na ci làmb yoo xamante ni man bi ngay doog a dugg si nga baal ma ci kàddu yi ba ma lay njëkk a gis Sénégal da ngaa dugg si ma ne ah boobu de daa am temps bu yàq rek waaw actuellement boo dugg ci làmb ñu ci bari ba ci amateur làmb yi dañ lay bàyyi xel bàyyi boobu ñu lay bàyyi xel yaa ko liggéey yow yaa ko wane doon nga xale am nga jom mais sérieux nga ci li ngay def mais est-ce que xam nga ni am na lu la manqué loo war a mën a yokk wala déet. non loolu yëpp moo la rek moom moo ko def si yéen moo ñu koy wax waaw du ma perdre sama temps pare di la yóbbu ngay ngay ngay wane ñàkk fayda boole nii mm-hmm. lu ma la liggéeyee loo boo demee wane ko mu ngi doon sport boo xam ni kaf laa ak ree mais ku daanu rës. Mhm. la gën a sonal ci ponkal yi. man kon ponkal kenn sonaloo ko. mu mës a bëre Boy Faye. Boy Faye deux fois lañ bëre. mu daan la ñaari yoon mu daan ma ñaari yoon. sonalul kon kenn sonalul. non kenn sonalul man xale laa. Hmm. xale laa. ñaata nga daje franc. Franc deux fois lañ bëre. mu daan la ñaari yoon mu daan la ñaari yoon. ba tey kenn sonaloo ci làmb. non non kenn sonalu ma. Caaka Faye nan nga def. Caaka Faye benn yoon lañ bëre. mu def la kii ba may doog a ñëw lañ ma gane sil ba may doog a ñëw lañ ma gane sil yu bëri lañ daan waaw mais dañ maa gane sil hmm. mais làmb la rek. Doudou Sané mos ngeen na mosu ñëw bëre. ordinateur Jonn. mosu te yow daal fi mu toll nii ak kee nu mu Kalma Ndour mosu la laal. mosu Kalma Ndour ba muy ñëw soq. du bëre poids lourd raw gàddu laa jël. am na koo ci bëreeloon mbabat boobu nga jëloon raw gàddu bi am na booy boo ci bëreeloon final ki ko indi woon nu tuddati mbër moomu daanoon nga ko terrain gaal gi de. Ah, booy booy kii bi la waaw. kii Ngor Ngor Nangar. booy booyam bi la Cheikh Diop. waaw woon mais gis nga li ma jaaxal mooy dafa am benn diggante Ibu Senghor ak ak ak euh, nu tuddati. ak fils de Badlen luy dox seen diggante parce que fekk naa leen arène nationale ñoom ñaar ñuy dëkkante dëkkante bi daa mel ni yow mi ci yow mi la jóge non si man de non gan daa daan kii raqam mu bokkal ndaw ak baay. daa daan raq kan. raqum Moustapha bu mu bokkal ndaw ak baay fils de Badlen laadu mooy booy toog hmm. Hmm. waaw. mu ñëw bëgg koo jëloo revanche. waaw. te yow bëri nga ak moom daan. Hmm. waaw. <laughs> keroog da dajewaatoo leen ba léegi. bëriwaat nañ. bu def la la bu def la ñu defaral defaral rek. waaw lamb moom noonu la. lamb la rek. waaw maa ngi man bëri nañ la. daan na ma daan naa ko sunu garaan la. bi bi ñu koy njëkk a daan bàyyiwul a xel. mais yow bi ñu koy daan daa mel ni dalaa bàyyi xel parce que xam na ne xale bi loo ko mayul da loo ko mayul da koy jëli. waaw. noonu la keroog bëri nañ mu daan na. waaw lamb la daal. yàlla na ngeen dajewaat waaw. ma am si moom ndam. <laughs> loolu kay ma yàlla ngeen daje bu dañ liggéey de. Hmm? nañ baax a baax a baax poids lourd yëpp nañ liggéey. li nañ liggéey daal. kan ak nañ liggéey. Malim. li ma. nañ liggéey bu baax lu mu liggéey doyul. <laughs> wala mujjee daan. du yomb de. bañu ma ba mu mag si bu ndam di am maay daan ñibbi. Aada Boy Bawol. non maa ngi mos ñoo bëre. Ah, ci ponkal yi la ba. waaw ndaanaan la mais ñoom ñëpp maay favori maa gën a nekk xale. maa ëpp doole maa mën. yaa ëpp gàllaaj. ñoom ñëpp. ndogu jot na de sama ndogu jot na de. ah ndogu jot na de. bilaay ndogu jot na de bisimilah. ndogu jot na de. waaw ndogu jënd kay. kon dañuy ndogu ji de. waaw noonu la doge. waaw ñu ngi Batista sama mhm. seex. Batista numéro 2. anam moom. muy gàllam. lu doon ñëwul. daa génn daa génnoon. yàlla am combat bu ñu koy jox. Hmm. waaw combat soq kii bi la yow war a bëre moom la demoon na xoole. Hmm. Hmm. booy bu baax la parce que am naa ci koo xamante ne Zeus borom Brésil nee na ma sama doom la damaa bëgg. waaw. ngeen gën gën ko jàppale ci làmb man ne ko mu ngi def ay déego yu am solo ma koy nuyu au passage Zos borom Brésil sama xarit bi hmm, xam nga ko Zos grand bu baax la day jàpp daf ñuy jàppale bu baax gàlleen la ñuy dal Tuuba keroog bañ fa ñëwee dafa ubbi bataawam nañu tànn leen yére barki alxuraani karim bataawam la tijji nii nit ku baax la wallaahi bëkk dem dafa woo man ko six as laay wuyoo mu ne ma war ko ko dépassé. bu dalay jox kii onze laay ngaw laal zës zës yow laa waxal joxal grand jiili onze maa la wax loolu. Mhm. yaa ngi doon laal onze. Mm. bat sëñ baam la nga laal. bu baax a baax a baax. waaw di nuyu waa Pikine ginnaaw raay bi yëpp waaw di nuyu sama mag bu ma bokkal ndaw ak baay muy Espagne waaw moom tam dafa ñuy jàppale waaw li wax lay gën a ñëw nag ndax dañ ñoo war a teg loxo jàppale laa manqué waaw gars yi jàppale wuñu lépp sama yaay moo koy def barki yàlla ak sama yaay moo koy def Gàmbi mm-hmm. damay dem bëre ji fa jox douze mil sama yaay fii laay taxaw jël seen place fay ko six mille wàcc kaaraan bu mu bëree làmb ji jeex ñibbi def naa ba trois sotti benn bi dama daanu premier tour ñaar yëpp billaahi mun ñibbi xam ne làmb la waaw lépp sama yaay moo moo paas waaw bëgg ko jàppale rek bëgg ko dimbali tabaxal ko kër hmm. waaw dama ko a jàppale tabaxal ko kër. ndeysaan. Mhm. yàlla yàlla mottali sama. Mhm. Bamba. Mhm. général général bu double moteur daf ñuy jàppale tamit. waaw kooku moom daf ñuy jàppale daf ñuy woo di ñu yaa ma gën a xam ay Ibou Jollaas Mbër Massa mu ngi nii <laughs> borom king faat waaw ñun di jaala moom sama yaay bokk ndaw ay ñoom adol ñëpp. waaw ñoom yàlla koor gaay gaay yëpp ku ñu juum. Hmm. jaajëf euh, mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la tas yaakaar wax heure dog nag dafa jot ñu war a xewlu bu baax a baax a baax ñu leen jaa jëfalaat bu baax a baax a baax encore une fois fépp waaye mën a nekk rek tey safoo wasaare làmb ñu ngi lay bégee di la jaajëfal di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ba léegi incha allah ci beneen xeexewu làmb jërë ngeen jëf.